ba yéen a ji mu am ngir liggéeyal ko sëriñ Abdou Lahad Mbacké suñu borom may ko lu maanaam koy njortam di ñaan nag ñu ñaanal ñu ci réew mi suñu borom def fi jàmm suñu borom tamit ah, yombal liggéey bi nga xamante ne senegal yëpp am nañ ko yaakaar ci Bassirou Diomaye Faye sunu borom bàyyi ko fi ba liggéey boobu mu eggale ko ak jàmm ànd ci ak kilifa diina yi ak jaboot yi ak ommoy bi yëpp sunu xool seet na lool nag ci teewaay bi waaw ñu ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp sunu borom defal leen xéewal defal leen salaam te bàyyi fi suñu Sidi Mbacke mu yàgg fi lool te ànd ak wér waa euh, dañ leen ci gën a woo bu baax rek ndax ku nekk xam na ne ñi fi nekk ñoom am nañ compétence te am nañ xam-xam tamit tey ñëw nañ fi ngir xool si euh, li nga xam ne moo fi nekk ay jafe-jafe bi ñu ñëwee dem nañ ci yenn yi la nekk tamit ci ay jafe-jafe bind nañ ko noté nañ ko kon dañ leen gën a soññ rek ñu gën cee taxaw ndax mënoo wax dëkkuwaay wax tamit santé wax wax wér-gi-yaram wax jaam yàlla te amoo ndox ndax yooyu yëpp wala mat force rek ndox mi am kon Touba war nañoo weesu fu ñuy nekkee sax naan am nañu am nañu problème ndox waaye nag euh, ñi ngi am yaakaar ne incha allah rabbi dinañ dinañ def suñ képp lay kattan ba jafe-jafe yi nga xamante ne am na muy jafe-jafe ndox sunu borom jàppale ñu ba ñu eggal liggéey ba nga xam ne Touba dootuñu waxat sax naan manqué na ndox wala manquéwul ndox loolu ministre bi ngi ciy liggéey te mi ngi ciy def jéego yi am solo ndax barki dem rek am na ñoo xamante ne concerté na leen na leen ci ñu nekk Touba ñoo xamante ne seen xam-xam màcc na ci wàllum ndox mi kon loolu am nañ ci yaakaar baax a baax. kon ñun tamit lépp lu luñ man ci gën a wax ak ñoom ci gën leen a soññ bañ gën a def ci ay yitte ba nga xam ne Touba am ndox den ko ci taxawee den ko ci waxee den ko ci jëfee ndax am nañ ci yaakaar kon ñu ngi ñaan yàlla na yàlla eggale yéene beeg bëgg-bëgg bi rek. jërëjëf balaa ngay ñu tàggaloo ñu laaj sëñ Moustapha fan yi tamit euh, xam na rapport yi nga xamante ne génn nañ ko gannaaw léegi wax nga ci sëñ Abdou waaye fan yi gis nañu ay rapport yoo xamante ne génn nañ ko ñu ci génn ci ay luubal yu doy waar yoo xamante ne ñi fi yoroon euh, réew mi ñu leen ciy tudd ana lan nga ñu ban jàngat nga ci waaw ñoo ngi ziar euh, ñëpp balaa boobu rek ñu jiital ci nuyoo bi Serigne Sidi Mbacké moom Cheikh Abdou yàlla guddal aw fanam euh, wéral ay cëram di wax ne tey dañoo ñëw ci bisub koo xam ne euh, mooy kan sëñ Abdou di jàmbaari lislaam man nag euh, dafa am benn bayit bu mu doon wax ci Serigne Touba mais moom ni mu ni ni ko Serigne Touba waxee ci yonent bi man tam noonu laa gisee biiru sëñ Abdou ci Serigne Touba muy loxoo dëhra niyaati wa ilmi wa xidmati wa rooxi wa jusmaani wa kulli bi la sukk Sëriñ Tuubaa dana yonente bi jox naa la sama deret jox la sama samay doom jox la sama lépp noonu ko sëriñ bi waxe woon ca yonente ba nag noonu la ñu gisee Sëriñ Tuubaa Sey Abdou Lahad euh, jëfe ko ci Sëriñ ndax Olof Njaay dane nit waxul nam mel nam jëf la wax waaye sëñ Abdou daanaka bi mu fi jógee yaakaar naa lim fi bàyyi bu matee million ci la yem te gis nga lim fi taxawal lépp ci ay grand procès lim fi def ci forage mën na 30 presque gis nga marché occas bi gis nga waxumal dara waaye dëggu ak dëggal ak gëm sa bopp parce que olof Njaay sax day wax ne as gor nit du du du gëm boppam day xam boppam waaye murid yi bu ñu xamee seen bopp sëñ Abdou Lahad am na lu bari luñ ci liggéey man sëñ Abdou Lahad dong laa ci àdduna ci aw fit ci ngor ci xam-xam te lépp loo xam ne tamit dina ko laaj lu jëm ci état muy jëm ci dëkk bi dangay xam ne kii li laaj lépp soxlawu ci dara lépp boppam taxu koo jóg askan bi moo ko tax a jóg kon tey bu amee bis ma ma jël ci moom fit gëm lim gëm taxawaayam bu cërub doomi Serigne Touba ak lépp jàllee ci nit ak nit mu bëgg ko lool ci ngoram ci fitam ci jomam ci xam-xamam ak ci xam ni muy doxale mbir kon daal bu ñu taxawee fii ba suba mën nañuy wax ci sëñ Abdou li mu def ci yoon wi ak ni mu yokke murit yi fit xam loo seen bopp gëm loo leen seen bopp képp koo xam ne da ngay déglu ay kaset sëñ Abdou Lahad wala ngay déglu ay waxtaanam dina la jàngal dina la yokk ngor dina la yokk fit dina la yokk jom ñoo ngi ñaanal aussi xalifaam bi di Serigne Sidi Mbacke ndax bu ñuy wax économie yoonu murit am na taxawaay bu yaatoo yaatoo yaatu boo xam ne Serigne Sidi am na ko ci parce que ku dem Daaru Salaam bokki barga fekk ko fa man ñii bi laa dëkk Lambaye lu jiitu sama wayjur sëñ Mat juuf Lambaye sëñ bokkoon na ci muudu yi sëñ Abdou Lahad doon wax mu ñu doon ay conseil am parce que sëñ Abdou dafa fexewoon ba kër sëñ Touba gu nekk mu am fa kenn koo xam ne am na dépasse dañu réer sëñ Touba yar ko wala mu yar baayam mu ne bu ma juumee ñëpp juum parce que dafa fexewoon ba kër gu nekk mu am fa kenn di waxtaan ak ñëpp looloo taxoon mu am sañ-sañu taxaw ne bu ma juumee ñëpp juum sama waajur bokkoon ca ñooña am leeram gu juddoo suñu kër sama mag jur ko muy sëñ Cheikh Bamba yaakaar naa daaw jeg la fi bàyyi ko samay tànk sëñ Abdou su jàllee loolu ñu liyee lépp man moom rek laa fan ci ab taxawaay ci gëm dëgg bëgg dëgg waaw bon loolu ak rek euh, di ñaanal Serigne Sidi di wax état bi aussi nañu gën a concentré wu ci modèle yoonu murit ndax xam naa ne ku mel ni président Sonko yàgg naa wax ne modèle yoonu murit la gëm parce que boo gisee léppam dafa lié ak modèle yoonu murit parce que baatu Pastef ci yoonu murit lañ ko njëkk a dégg. moom mooy politicien bi nga xam ne tey moo fi njëkk a bayaloo ay gone loolu lépp di ay lu rafet Touba ca kanam gii nee na dina ko copier yóbbu ko Ziguinchor te gëm naa ne comme mooy premier ministre war na ko copier dugal ko ci institution bi. parce que bu ci yoonu murit bu ci état bi référé woo dinañu raw fépp ñëpp ndax ku gis sëñ Sidi lee muy def Daaru Salaam bokki barga ak la cay dem ci xaalis parce que sëñ Saliou daan nañ ko laaj ne ko yow mbay mi ay milliards nga ciy def waaye booba ñoom xamuñu ne wuti ca bénéfice waaye defar nit ñi. la ca jublu te bay dundee day mbir moo xam ne day mbir mu lew kon état bi bu ñu bëggee développé nañu jéem a jël modèle yoonu murit buñ koy jël nag ku mel ni sëñ Cheikh Saliou ak sëñ Sidi am nañ taxawaay bu yaatoo yaatoo yaatoo yaatu ci mbay mi kon yaakaar naa ne war nañ leen a gën a jege gën a waxtaan ak ñoom ndax bu boobaa seen njariñ képp lay doon li nga ma laaj aussi nag ci mbirum rapport yi loolu mooy rupture ñii buñ ko defutoon rapport yi ñooy doon seen opposant ndax am néeg nag boo fa duggee ñu luyee la ko kenn ka fa nekkoon génn bala nga faa dëkk di nga ko peinture bale ko raxas ko daal di wax daal di dama def contrat doog a dugg kon ñoom bu fekkee dañoo ñëw 1960 ba tey gars yi nekk fi rapport bu nekk am fi nu ne nu leen neex ñu yore ko réew mi yaakaar naa boo fi ñëwee ñu ne rupture lañ bëgg war nga xam li sénégalais yi bëgg nga dox ci rupture nag weesuwul xool li fi nekk càmbar ko koo xam ne da jël alalu réew mi jërul tëj jërul toroxal mais na nga ko delloo bu fekkee bëgg nga njekk soo ko delloo continuer nekk ci sa ay activité soo ko mënta delloo aussi dinañu fexe ba récupérer ko delloo ko askan wi parce que loolu mooy dëgg mais ñii fi nekk buñ ko deful rek wane wuñu yoon ne bëgg nañ jub jubal jubanti parce que jub jubal jub jubal jubanti lañ wax waaw ku bëgg jub jubal jubanti nag jubanti nag xool li fi nekkoon daf ci bokk. kon yàlla def na lañ leen taxa lañ leen taxoon ñu fal leen li diir bi gàtt gàtt ñi ngi koy gis kon nan leen may muñal leen te ñaanal leen rek suñ borom defal leen sutura ba du ñu gis seen bopp ñu gis suñ borom gis sénégalais yi xam ne doole yàllaa ko yorte moo koy joxe te jërut kenn yi génn di jéem a défendre parce que ñun ñi xeex ba ñu toog seen bilan ñoom moo leen wara a défendre mais du ñun ñoo war a nekkaat ci télé rajo yi di leen défendre mais ku teel a jóg ba nga xam ne nag ñëpp xam nañ yow mii saboté nga nar di nga dajeeg ñun ndax wéeruñ suñuy kook comprendre nga kon euh, maa ngi woo sénégalais yëpp ñu taxaw ñaanal leen gunge leen te xam ne bu ñu bu ñu amee ndam Sénégal gépp ñoo am ndam su leneen xewee tamit ci kaw sénégalais yëpp lay xew te am nañu yaakaar ci ñoom lool am na ñoo xam ne nag ñu bari dañu xaw a yàkkamti parce que réew moo xam ne 1960 ba léegi ñu ngi koy yàq nga jox ko nit 20 jours nga bëgg koo defal état loolu dafa yomb lu ñu yàq 1960 ba tey mënoo koo defar ci 15 jours kon nit ñi nañu dal te aussi gars yi élan bi ñu jël ku ko gis xam ne bu ñu leen mayee tuuti dinañ gis li taxoon ñu fal leen waaye nag kuy def tooba saxal baama sulli doo am sëb doo am dugub doo am gerte boo jiyee da ngay dem tëdd sa kër xaar yàlla si taw nga bay bayaat doo a mën a deqi 15 jours nit mënu cee lijjanti dara loolu nag. ñi ngi leen ci soññ ku gis lii dem président Diomaye dem cees ci suufu mbuurkat si nga xam ne am na quatre politiciens yu nekk cees kenn ki ñu ne am na quatre cent terrain kenn ki am na trois cent terrain kenn ki am na deux cent kenn ki am na quatre waa dëkk ba am trente xam nga ne ñooñu waa Thiès bu ñu leen falatee wala ñu boole leen dara ci li doxal Thiès ñoo rey seen bopp dégg nga te ku joxe sa baat ñu lay rendi nag bu ñu lay rendi waro yuux yéen politiciens yu mag yi waa Thiès yu mag ya fa nekk depuis soixante ba léegi ñoom ñoo am 400 terrain ñii am 80 ñi am 150 yéen waa Thiès gépp ngeen am 30 waxuma la dara waaye ka ko sulli gis ko mënoon na cee dëgg tànkam ne affaire de état mais da koo sulli ñëpp gis ko gis nga mbirum état ay secret d'état ay caaxaan la képp koo xam ne daal sàcc àll mi nan ko sulli woon la ne ko lii yaa ko fii la nekkoon France procès bu fa jóg nu mën a toll ñëpp koy gis daanaka bu bu ñuy càmbar kenn ku nekk di français man ngaa xam lay génn ci résultat ba avant cour de comptes di ko wax wala seen ñiy càmbar di ko wax am réew nañ ko teg ci dëgg min maanaam jamono moo weesu loolu ay homme de temps nga dóor sa costume du xóotar xóotar loolu moo fi jóg yëf nañ ko teg ci kaw taabal ji waxaa waxtaane ko ñëpp bokk ci di ñaan daal président Ousmane Sonko ak président Diomaye suñ boroom defal leen sutura defal leen tawféex te ñu may leen tuuti ab diir xam ne bu ñu leen mayee ab diir incha allahu rabi ñëpp dinañ saraxolle wasalaamualeykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf